daan tëj la waaye léegi lu ci bari ci génn di ñaxtu am ku taal benn oto Dakar Dem Dikk wala ku yàq benn bureau euh, tribunal dañuy jàpp ne acte bi c'est terroriste bu njëkk du woon loolu waaye léegi gis nga Macky Sall dugal na ko foofu pour bëgg na leen tëj ngir dund loi yooyu la opposition bi jóg du ko fàttalikoo il deux semaines ba ko député Macky Sall yi nga xam ne ay jaam lañu ñoom lu ñu yëgal seen loxo xooluñu seen drap yi bàmmeel xooluñu kuy dee ëllëg xooluñu seen kanamu yàlla waxu mam waxu mam Abdou Aziz ba mu waxoon ci député yi xooluñu dara jënd nañ seen àdduna jëndee ko seen àllaaxira waaye loolu ñoom ak seen borom la ëllëg lu Macky Sall indi ñu voté ko ak Moustapha Niasse ñoom ñooñee ñoo voté woon ñaari loi yi nga xam ne day taal Sénégal ba ñu ko defee opposition bi député yi jóg ne kat comme def nañ ko te jaarul yoon ñun lànk nañu waaye forcé nañu ko léegi dañuy dem fa mbaxana doon benn mooy fan conseil constitutionnel def seen recours yóbbu fa ne kat lii ak lii ak lii ak lii lu waa beeg lii li ci nekk yépp méngoowul ak àq ak yelleef doomu aadama ndax jóg ñaxtu dox ñaxtu kooku yoon moo ko mayee ci àdduna bi yépp te daf ci am ay disposition yu bees yuñ ci dugal yoo xam ne benn régime juridique bu bees lañ ci indi boo xam ne mooy un régime de responsabilité des personnes morales bu njëkk bu ñuy manifester képp ku manifester bu ca yàqu amee la ca yàqu yow mi ko def yow la ñuy àtte tëj la waaye léegi dañoo dugal ci loi bu bees bi nga xam ne moom la ñu voté képp ku fi wooteeti moo xam syndicaliste la moo xam association la moo xam daayira murit la wala bu tijaan wala moo xam parti politique ku fi mën a woote am mbooloo woo ko ci tur woo xam ne boo mbootaay la yow mi woote mbooloo moom bu fa yàqu-yàqu amee bu méngoog ñoom liñ jàpp na lii terrorisme la bu boobaa non seulement ko ko yàq duñ ko daa teg daani waaye yow mi jiite mbooloo dañ lay dugal te daan ya tëj la sa ngir dund loi boobu lañ dugal ci biir code pénal bu bees bi ak code procédure pénale bi moom la Macky Sall indi opposition bi ne lii musiba la ndax boo liggéey mën nañoo cibler benn parti politique mu woote am ndaje am ñu fa génn yàq ñu ne borom parti ba kat moo leen woo kon ñu non seulement ñu yàq dañ leen daan waaye borom parti ba dañ koy daan parti ba dañ koy tas masalan bu ab sëriñ woote woon tey jii gàmm wala daayira wala màggal am yàqu-yàqu yu fa am bu boobaa dañuy daan ñi ko def daan sëriñ bi woote daan daayira ba daan ñëpp tëj leen ci kaso bi seen mbiru dund loolu la Macky Sall dugal ci biir loi bi opposition bi ne lii musiba day taal réew mi yóbbu ko fa mba xam ne doon benn muy conseil constitutionnel pour que ñoom ñu mën cee àddu ñoom ñooñee nag nañuy doxee ak nañu war a jëlee ay dogal ci réew mi yoon daf leen a tënk ndax kenn du def ci lu la neex ci am réew ku ci nekk yoon moo leen tënk yoon bi leen tënk nag mooy loi bi nga xam ne mooy la loi 2016 tiret di 14 juillet 2016 bi nga xam ne moo loi organique bi nga xam ne moo ngan ko doxalinu conseil constitutionnel ña fa nekk ñaata lañuy doon naka lañuy liggéeyee décision yu njël bi yan kii la am ak ni ñuy fonctionner yooyu yëpp loi boobu moo ko tënk loi boobu état moo ko jël Macky Sall ci boppam moo tëgg loi ba signé ko jox leen kon conseil constitutionnel bi nga xam ne fa la mbaxana doon benn moom mooy àtte yenn jafe-jafe yi moom ci boppam buy àtte dafa am àtte ba taxawee mënut def lu ko neex ci biir loi boobu nga xam ne moo tënk conseil constitutionnel muy la loi organique donc 2016 tiré 23 du 14 juillet 2016 daf ci am article bu njëkk boo xam ne mooy article 23 daf ne conseil constitutionnel bi nga xam ne moom mooy fa mbaxana doon benn moo tiim yoon yi ci réew mi yépp kuñ ci xañ saw yoon wala nga dem ba amatoo pexe mën nga faa dem ñaxtu ji ci lépp loo xam ne dafa laal loi wala mu nekk benn acte décision wala décret lépp loo xam ne dafa laal làmboo loi Macky Sall jël décret wala ministre bi jël benn arrêté ministériel wala opposé wala député yi voté loi boo xam ne lépp loo xam ne dañu koy indi di ko xayma ci wàllu yoon ci réew mi di ko àtte ku ci am loo naqari mën ngaa dajaloo dem ca conseil constitutionnel jàpp nakat kat bii dafa méngoowul ak àq ak yelleef doomu aadama yi nga xam ne constitution bi da koy sàmm article 23 daf ne kon conseil boobu ña fa nekk wala jël dogal yooyu juróom-ñaari àttekat la ñuy nekk sept set membres la ñu nekk juróom-ñaari àttekat ñu ne ñaari àttekat yooyu kat Macky moo leen di tabb ci décret moo jël décret xaatim décret tabb leen bu leen tabbee ba noppi ñoom ñooñee kenn ku ci nekk tabb bi ñu leen tabb mënut a weesu juróom-benni at bu amee juróom-benni at dañ leen a war a soppi jël ñeneen teg fa waaye kenn leen a yeesal seen tabb boobu. article 3 moko wax dit donc article 3 de la loi organique 2016-23 les membres du conseil constitutionnel sont, au nombre de 7 ils sont nommés par décret pour une durée de 6 ans non renouvelable dont un président et un vice-président kon 7 yi juróom amna ci benn président ak benn vice-président ñep sen seen tab tabb mënta wess juróom-benni at ma président bi moo jël décret nommé leen bi loolu amee kon ñu nekk juróom-ñaar ba janvier bii weesu le 3 janvier 2021 am kenn ci ñoom ku faatu ku génn àdduna ku jigéen mu des kon juróom-benn ñu ñëw ba bërki démb mois de juin la le 25 juin bi ñaar ci juróom-benn yi desoon ñaar ci juróom-benn yi desoon seen mandat jeex juróom-benn at ya jeex bokkatuñu léegi conseil constitutionnel kon juróom-benn yi bu ci ñaar génnaatee ñaata moo ciy des ñeenti attekat ñoo fa des léegi ñeenti attekat ñoo fa des ñeenti attekat nag. mënuñoo jël jogal ci conseil constitutionnel ndax loi bi nga xam la loi organique numéro 2016 23 du 14 juillet 2016 boo demee article 23 article 23 nga ci loi ba daf le conseil constitutionnel ne peut délibérer qu'en présence de tous ses membres sauf empêchement temporaire de trois d'entre eux ou plus dûment constaté donc par les autres membres masalan article 23 bi nee na conseil constitutionnel bi nga xam ne mooy kuréel bi gën a kawe ci réew mi ci wàllu àtte jël dogal ci yoon mënta jël benn dogal ci yoon lu dul ñi xam ne ñoo ko ŋànk muy juróom-ñaar yi nga xam ne ñoom la ñu nomee ne ñoom ñoo koy dox juróom-ñaar dañoo daje tant que juróom-ñaar yi daje wuñu ba mat mënuñu fa jël benn dogal ci wàllu yoon mu ne waaye mën nañoo may conseil constitutionnel bi mu jël dogal ci kaw su fekkante ne ñett ci juróom-ñaar ñi am nañu ay tolof-tolof ba ñëw teew ca ndaje ma daañu leen may règle bi mooy juróom-ñaar yëpp a war a teew pour jël benn dogal bu juróom-ñaar yi amul dogal mënu faa am lu dul ñoom ci juróom-ñaar yi mu am ñett ñoo xam ne ñoom kat gis nañ ne seenu teew lu jafe la te la ko sabab mooy mën naa am dañoo tukki mooy empêchement temporaire mën naa am dañoo feebar mën naa am mën naa am lépp loo xam ne ak ak tolof tolof la boo xam ne tolof tolof bu fi nekkandi la waaye du tolof tolof bu fi sax daa iman ñett ci ñoom bu ñu wuutoo ñeent ñi fi des mën nañoo jël dogal waaye day fekk ñett ñooñu nga xam ne ñoo fi nekkul ñu xam lu tax newuñu fi ñu mën ko constaté def ko ci ay këyit ba mu nekk dégg nga maam wuutu goo xam ne yoon da koy nangu mooy nga feebar nekk hôpital wala nga tukki yu demee noonu waaye nee na leneen du loolu. conseil constitutionnel bi mënta jël décision ci ñeenti nit kon bu ngeen fàttali ko sànq danaa leen kenn ki faatu na kon kooku moom empêchement définitif la mooy maanaam kooku moom dundatul ku dundatul moom xam nga kenn mënul ne dañ koy remplacer ndax ku dee moom dee na ñaar ñi ki des seen mandat jeex na ñoom bokkatuñu kon ñett ñi nga xam ne ñoom nekkatuñu fi ñoom bokkuñu ci ñi nga xam ne dañ leen di considérer ne ñoom dañoo am empêchement temporaire maanaam dañoo am ay tolof yoo xam ne yu yu yu yu yu yu yu

code pénal code procédure pénale jaarul ci yoon opposition bi dem fa fofa nak ca conseil constitutionnel di fa ñaxtu mais conseil constitutionnel ñun ñëpp taxawon nañ ne mënta jël décision tant que Macky Sall xaatimul décret tabat ñet nit yo xam ñoy ñooy wuutu ñett ñi nga xam nekkatuñ fi ñu fekk ñent ñafa dess ñu mëna andal mëna tok mëna wax kat li nga xamne ne nañ ko ci assemblée bi jaar na ci yoon wala wala jaarul ci yoon ñuy xaar Macky Sall bo ba léegi tabul kenn mi ngi toog jàpp njàmburam te moom mooy nommé aux emplois civils et militaires sur le plan constitutionnel moom moo am prérogative du nommé moom moo am sañ-sañu tabb ak bañ a tabb conseil constitutionnel nga xam ne mooy conseil bi saytu garder suñu constitution charte réew mi ñi koy saytu Macky Sall moo leen di te juróom-ñaar lañu war a nekk bu ci kenn manqué Macky daf ko war a remplacer tabb keneen Macky taxaw lànk tabb ci kenn boobu léegi jamono bi may nga xam ne moo nekk ci lu tax Macky Sall nangul tabb kenn loolu leneen la nañ ñëw parce que day politique opposition yi bi ñu dugalee seen recours ñaxtu ma jàppoon ne conseil constitutionnel bi day taxaw ne kat ñun mënuñoo jël décision mënuñoo jël dogal ci lii ngeen ñu laaj di ko ñaxtu ndax ñun kat matuñu ñeent lañu te juróom-ñaar lañu war a nekk ñett ñi ñaar ñi dañoo jeexal kenn ki dafa faatu ñun nag mënuñoo jël dogal lu dul dañoo mat lim bi nga xam ne mooy juróom ñaari comme loi bi nga xam ne moo créé conseil constitutionnel bi tënkuñu ñun ñëpp. ni mu ko waxee ci article 23 kon seen dogal bii ak seen ñaxtu bi ngeen jël yéen opposition bi ñun duñ ci mën a wax ndax Macky Sall moo war a tabb ñeent ñett ci ñun ñu ñëw fekk si ñun tabbagu leen ba léegi defuñu ko dañoom conseil constitutionnel dañoo dajaloo ci ñeenti nit xaatim seen document bu 23 pages pour répondre opposition bi ci ñaxtu yi ñu doon ñaxtu ne leen ñaxtu yi ngeen doon ñaxtu yëpp teguwul fenn li député yi def ak Macky Sall lépp jaar na ci yoon te loolu leneen la loo xam ne dara jaaru ci ci yoon waaye ñoom dañ koo dëggal ndax Macky Sall lañu àndal benn li ci gën a garaaw mooy ñoom dañoo jël dogal boo xam ne dañ koo dëj dañ koo jël ci ñeenti nit te article 23 def na mënuñoo jël benn dogal lu dul ñoom dañoo mat juróom-ñaar ñoom ñu jëw ñoom tey ñu ñëw jalgati yoon bi nga xam ne moo leen tënk ñoom ñi nga xam ne ñoo war a sàmm yoon réew mi ñi war a sàmm yoon réew mi te càmm googu du tegu ci yoon woo xam ne daf leen tënk ñoom ñoom ñoo ñëw tey jalgati yoon wi leen tënk jalgati yoon réew mi maanaam tey réew mi amatul kuy sàmm yoon moo tax ma ne le Sénégal est en danger population bi ñëpp war a jóg taxaw conseil constitutionnel amu fi ay ñu corrompu ñoo fi nekk ay nit ñu tekkiw dara ay nit ñu ban ñoo xam ne bis naka tey taal nañu almet sotti sotti essence ci Sénégal pour taal Sénégal ngir lu neex Macky Sall bis naka tey conseil constitutionnel def na coup d'état juridique yéen a ngi wax ay 2024 ay troisième mandat quatrième mandat xamuleen li xew li conseil constitutionnel tey def moo gën a garaaw ki sañ def lii bu subaa sañ naa fal Macky sàll à vie du ko teg troisième mandat candidature yi ngeen wax réglé na ko Macky sàll bu yàgg ndax ñi fa Macky Sall tabb moom lañ fa nekkal Pape Omar Sakho mi nga xam ne mooy président conseil constitutionnel Seydou Nourou taal mi nga xam ne moo fa des Pape Omar Sakho euh, Abdoulaye Sylla ma fa des ak Mouhamadou Diawara jël leen jàpp leen bu ñi fa des. président bi mooy Pape Pape Omar Sakho Seydou Nourou Tall Abdoulaye Sylla Mouhamadou Diawara ñeent ñi ñoo def ci conseil constitutionnel mu manqué mu des ñett ñoo xam ne ñaar ñi seen mandat jeex na kenn ko faatu na Macky Sall taxaw lànk na di leen ñu mën doxal seen liggéey waaw su Macky Sall bloqué conseil ndax bañ tabb ñu bees ñoo xam ne ñooy wuutu ña fa nekkoon lànk na du ko def ndax xam ne tax du ko def est-ce que Pape Omar Sakho mi nga xam ne mooy président conseil constitutionnel ak ñett ña nga xam na ñoo fa des nekk ak moom mu jiite leen muy Abdoulaye Sylla muy Seydou Nourou Tall muy Mouhamadou Diawara est-ce que ñoom ñett ñoom ñeent ñooñu dañoo war a toog ñoom di jalgati yoon bi nga xam ne mooy la loi organique numéro 2016 23 du 14 juillet 2016 notamment en son article 23

te mooy lan li ko opposition bi tey laaj ci loi yooyu ñu voté ne doxul na ci indi kàddoom indi ci li yoon wax nee loolu moom da cee war a tontu donte ñoom matuñu juróom ñeent lañu kon tolof tolof am na waaye tolof tolof boobu du teye conseil constitutionnel bi dajaloo waxtaan jël décision teg loolu mooy lan mooy matuñu juróom-ñaar juróom ñeent lañu Macky Sall moo waroon a nommé ñett yi nommé leen loolu lépp am na waaye nag ñun du teye nag ñu toog dajaloo jël décision ci ñeent nit.

au lieu que conseil constitutionnel def communiqué na kat yéen opposition bi ma doon laaj ci lii ak ci lii ak ci lii pour bëgg ma àddu ci mënuma cee àddu ndax mënuñoo àddu ci ñeent waaye ci juróom-ñaar lañ mën a àddu ndax article 23 loi bi moo ñu tënk moom conseil constitutionnel bi nga xam ne moom loi da koo tënk mu war cee tënk moom moo ñëw jalgati loi ba moom bu moom bu jalgatee loi man mën na maa jalgati loi yéen mën ngeen a jalgati loi Sénégal gépp mën ngeen a jalgati am ndax ñi waxoon a saytu loi bi ca kaw waroon a jubal ñoom ñooy dëngal lii mooy li xew ci réew mi ñoom ñu dajaloo ne nekk ci tolof tolof dañoo nekk ci jamono bu difficile jamono boo xam ne ci dëgg-dëgg ni ñu waroon a doxee doxewul matuñu lañu waroon a doon lim bi juróom-ñaar ñeent lañu nag loolu du leen téye ba ñu bañ a jël dogal ñu dajaloo jël seen dogal dogal ba mooy la opposition bi doon ñaxtu yëpp ñu dàq ko ne loolu amul député Macky Sall def yëpp baax na non seulement la ñu dëggal ci député yi voté woon loi bi ne baax na baaxut dafa loolu dafay dàq àq ak yelleef yi constitution bi daal loolu non seulement loolu du dëgg waaye ñoom décision bi ñu jël c'est pas légal parce que conseil constitutionnel mën ta jël benn dogal ci ñeenti nit ci ci juróom-ñaar la ko mën a jëlee kon décision bi ñu jël amul njëriñ li garaaw nag mooy ñoom dañoo lay na dañ koy jël ndax bëgguñu conseil constitutionnel bi bloqué wu mais su ngeen bëggul conseil taxaw yéen ñëpp ngeen démissionné. wala ngeen poñe Macky Sall mu nomé ñett ñi manké pour ngeen mëna liggé Macky Sall néna dañ ko fal mu précisément taxaw waat waat ci limu gëna fonk waat na mom day sam intérêt Sénégal day sam constitution bi charte yi réew mi day sam loi réew mi day sam askan wi da ko waat charte bi nga xamné ne keroog ba muy taxaw di waat ka doon waat loo mooy Papa Omar Sakho mi di président du conseil constitutionnel président Macky Sall néna mom moy le gardien de la constitution il est là pour surveiller l'application de la constitution maanaam doxalinu tëralinu yoon yu ak charte réew mi nga xam ne mooy li boole Sénégalais yi comme ni constitution bi ki koy sàmm di conseil constitutionnel Macky Sall ci boppam moom moo ci jiitu keneen ba muy taxaw di waat na moo gañe ci kanam Pape Omar Sakho mii la ko defee Pape Omar Sakho fal ko ne ko yaa falu yaa gañe deuxième tour bi yaa gañe premier tour bi yaa gañe yow waatee mu waat ci kanamam gërëm fa Marème Faye Sall Pape Omar Sakho mii tey Pape Omar Sakho moo demaat ci jamono ba Macky Sall xañ ko ñett ci mbooloo mi nga xam ne ñoo war a dajaloo ak moom pour ñu jël ay dogal au mu dellu ca Macky Sall ne ko bi ci laaj bi ndax ñeent lañu te juróom-ñaar lañu war doon te ñett ñi yow yow rek yaa am pouvoir nommé leen membre conseil constitutionnel kenn mënu koo nommé ku dul Macky Sall kon su lànkee ne du leen nommé blocage bi am conseil constitutionnel Macky Sall ci moo ko def du man du yeen du kenn du sëñ Muntaxa du sëñ Mbay Si du kenn mo bloqué conseil conseil Macky Sall ci boppam mo bloqué kurel bi nga xamne moy saytu charte yi té réew bi ndax mo lank na du nomé du bind jël dëkk na ñett ña fa manqué conseil constitutionnel lan moo waxoon def Pape Omar Sakho ni ko jité moy taxaw na man opposition bi laj ngeen ma ay xalaat ci li nga xamne député Macky Sall yi voté nañ ko ci loi organique bi procédure pénale le code pénal et le code de procédure pénale mënu ma ci wax ndax matuñu yoon daf na pour ñu mën ci wax jox leen ci suñu xalaat ñun conseil constitutionnel il faut que ñu mat juróom-ñaar te matuñu ko kon mënuñu ci wax loolu la waroon def defu ko dafa forcer barrage bi dajji bunt bi dajale ñeenti nit toog ñu jël décision décision bu ñeenti nit jël amul du am impact juridique maanaam kooku amul conséquence juridique amul benn effet juridique kenn mënu cee tënk pour promulguer la loi kenn mënu cee tënk pour appliquer loi bi ci citoyen yi amul benn sénégalais boo xam ne tey mën nañ laa appliquer le code pénal et le code de procédure dañ koy récuser dañ koy dàq parce que tegul ci yoon parce que ki waroon a wax ci yoon dafa jalgati yoon muy conseil constitutionnel ndax bëgg neex Macky Sall mooy kat fal ko ci réew mi jox ko suñu euh, budget suñu euh, impôt suñu armée suñu nomination mooy buum ak buum ku nekk moo koy nommé ko neex buum ku ko neex buum bi mu dem a dem ba am sañ-sañu toog ci réew mi kuréel a kawe muy léegi bloqué ko ne ñett ña fa manqué du ma leen nommé saa yu ma neexee laa leen nommé. tey wala doo sax Sénégal lay toog di xoole ñu bàyyi ko ci ba kañ mu bàyyi ba ngeen tabaski gi nag ku nekk lekki xar ñii salin basé baal ma àq ba jamono bi ngeen ni kenn ko ne baale àq ñu daal di sur xool seen mbir ndànk toog jàpp seen ne kenn du ci wax ndax nit ñaa ngi ñu ngi ci àll bi kenn yëgul la xew fi mu doon ay wuyu lañu dañuy bàyyi ba ngeen nekk ak seen i folklore tabaski baal ma àq ci yéen yooyu jàpp damaa feebar mais il faut mu wax ci amatuñu lenn lenn lenn loo xam ne ñun sénégalais yi mënasi nañ koo xaar ci Macky Sall ci masla ci bëgg jàmm ci te moom ci delloo si ko Macky Sall bus bu yàlla sàkk muy teg jéego boo xam ne day wan ne réew mi ku fi yeewoo ku Macky Sall faale amut du Serigne Mountakha du Mbaye Sy Mansour du kaca daakaka du taaleen bi du laayeen bi du kenn Macky faalewul sénégalais yi du seen sëriñ yi du sénégalais faalewul kenn lu ko neex lay def tabb ay nitam ñuy jalgati yoon guddi ak bëccëg pour taal réew mi réew mi dana tàkk nag yëpp lay def ndax ki nga xam ne bu élection amee ci réew mi mooy taxaw ne yaa gagné muy conseil constitutionnel tey moom mooy jalgati yoon comme ni mu ko war defee saa su ne lii mu def tey coup d'état la bu subaa bu ñu nee candidat day taxaw ne Macky Sall candidat bu ñu élection mu ne Macky Sall mo gagné may wax sénégalais yi na ñëpp jóg empêcher le fonctionnement du conseil constitutionnel nañu dem génn parce que amatuñu conseil constitutionnel nañu leen dem Pape Omar Sarr nañu xam fu mu dëkk Seydou Nourou Tall nañu xam fu mu dëkk hein Abdoulaye Sylla nañu xam nañu dëkk Mouhamadou Diawara nañu xam fu mu dëkk ñent ñu ñoo des conseil constitutionnel nañ leen repérer ba xam fu mu dëkk ak seen i mbokk yépp xam nañ defoon ki nga xam ne mooy juge Samba Sall nañ ko defoon Mamadou Seck ba ngi démissionné ci affaire aji ci affaire aji saar bi juge yooyu juge yi nekk conseil constitutionnel ñoo leen gën a garaaw ndax juge yi nekk conseil constitutionnel c'est des conseil c'est des juges yoo xam ne c'est des juges politiques ñoom ñooy wax ku gagné élection ak ku gagné wul ñoom ñooy fal ñooy folli ñoom ñooy def coup d'état pap Omar Sakho mooy président bi nañu xam fu mu dëkk ak i mbokkam Abdoulaye Sylla nañu xam fu mu dëkk ak i mbokkam Seydou Nourou Tall nañu xam fu mu dëkk ak i mbokkam Mouhamadou Diawara nañu xam ñeent ñi ñoo fa des ñoom ñoo def coup d'état bi bu ñu sañee jalgati article 23 de la loi organique 2016 tiré 23 du 14 juillet 2016 bu ñu ko sañee jalgati pour bëgg lu neex Macky Sall bu ëllëgee ñooy taxaw na Macky candidat la ñooy dem élection ñu ne Macky gagné bu tabaatee ñu ne ko candidat waat nga daa iman mu nekk candidat di leen jox kenn ku ci nekk ils ku nekk yaa ngi 7 7 millions de francs CFA le Macky Sall di fay ci ñoom ñu conséquence kenn ku ci nekk kenn ku ci nekk am nga 4x4 avec une voiture berline am garde du corps am chauffeur am voiture de fonction am 2000 litres carburant am dégg nga euh, maison de fonction bo xam 1 million am mutuelle illimité da ngay fadjou France fo dem une kenn kenn du la fay Ñom li ñu am ci ay avantage kenn ku nekk par 10 millions Ñom juge yi juge constitutionnel dañ ko a ñom Macky Sall seen émoluments yi seen paiement yi Macky dafa jël décret ba noppi làq ko nëbb ko lii ma leen wax man maa leen ko wax kenn ku ci nekk ñoom Pape Omar Sakho ñoom kenn ku ñoom am nga 10 millions par weer ci ay oto kër ak salaire yëpp sans compter mbuxum di leen Macky Sall di leen mbuxum tout le temps leen jox xaalis ay millions et des ci ay milliards lañ tëdd moo tax lu lu Macky bëgg la def bu ñu jëwul dem fekk leen ci conseil conseil takk leen sénégalais yewu len jóg len ñi demoon ci all bi ñepp seen mbokk yi dem tabaski yi ñu tabaski ñu dara yéen a ngi dem di tabaski ji ray xar mbokk yi ñepp ñen contane waye wallahi seen bu seen baagi tak li ma gis ci suñu kanam muy tak suñu delu seen ngeen ko rek yeen ñepp tal rew mi lañ bëgg ñoom ñepp dé parce que xam nañ ne ñoo dem jàqase nañu rew mi sacc nañu alalu rew mi dictature lañu ci bëgg tek nekk ci ko askan yu daiman iman ndax xam nañ ne réew mi buy rocceeku ci seen loxo ñoom ñëpp ñu dem ci kaso bi moo tax jaral na leen ñëpp dee mais duñ tëdd kaso jël alal réew mi di ger juge di ger magistrat yi conseil constitutionnel kenn ku ci ne papa Omar Sarr am na 15 millions par weer papa Omar Sarr di ko jël vice président bi ko topp am na 12 millions ñeneen ñi am nañu ay 7 ak 8 millions ay auto 4x4 ak carburant duñ ko jënd bu ñu feebaree dañuy faju gratuitement billet d'avion yi France fu ne la ñu dem faju ñoom ñu nekk conseil constitutionnel moo tax keroog bi Macky Sall di prêter serment ngeen dégg Pape Omar Sakho bi ci digg mbolo ma Macky Sall di wat mu fay gërëm Marème Faye Pape Omar Sakho di gërëm Marème Faye la Marème Faye lan la jotté ak suñu ay institution mariam faisal lan mo yonam ci suñu prestation sa Marème Faye amul ah, Sénégal première dame amul statut dans nos institutions républicaines il y a pas de première dame naka la ñuy taxawee ci moment bu solennel moment bo xamné dañuy prêter serment moment boo xam ne c'est solennel moy maman bi gëna symbolique Sénégal

war nañ ko autopsie ba xam lu ko rey conseil constitutionnel daanaka ku fa dee rek deewoo naturellement ndax booy lànk ñu lay rey donc mafia bi noonu tuddee c'est une booy lànk ñu lay rey Samba Sall dañ ko rey Bruno Diatta dañ ko rey ndaw soosu nekkoon te dee le 3 janvier 2021 bi conseil constitutionnel ndaw xawma naka busoo xawma bi nañ ko dem autopsie Sénégal nag xamu leen autopsie moo tax moo tax dañuy rey rek tant que du leen autopsie ñi yor système bi duñ jóg ci rey dañuy rey Cheikh Tidiane Diakhaté bi yoroon conseil constitutionnel dañ ko rey nañ def autopsie xam lu ko rey lu leer laa leen wax de man du ma ba mu génnee àdduna ñu jël Pape Omar Sakho bi taftal ko fa Pape Omar Sakho 2015 Cheikh Tidiane Diakhaté dee gu gaaw la dee taf taf taf ñu ne dee waxoon naa leen ko fi ne leen nañ def autopsie jël jël soxnaam seen bu Njaay Jaxate bi nekk OFNAC jox ko OFNAC pour defal ko sëñ bi jaay jaxate na dem defi na dem ca kooru jëkkëram ci bàmmeel ba comme ni ko tubaab bi defee ñu sulli ko jël ci échantillon dem defi test ADN pour xam lan moo ko rey Cheikh Tidiane Jaxate parce que à la veille du référendum de 2016 lañ ko rey la dee dee gu gaaw boobu ñu ngi préparé wàññi mandat sept ans bi ak duñu ko wàññi muy layam layam di wër fu ne di wax ñu daal di koy liquide génne ko ci lañ dugal Pape Omar Sakho bi en 2015 parce que Pape Omar Cheikh Tidiane Diakhaté ci bu àndul ak li ñu bëgg ñoom buñ buñ la nee lii la nga lànk dañ lay négocier ak yow xaalis ger la boo nangul ger ñu rey la amuñu ñetti méthode ñaari méthode lañ am lii lañ bëgg waaw jox la xaalis nga def lii lañ bëgg déedéet ñu jox la xaalis nga lànk ñu fekk la fa boom la am nañ seen ay système nu ñu lay rey rey bu gaaw du am trace parce que Sénégal du ñu autopsie Cheikh Tidiane Diakhaté ko autopsie buy noo jaata nañ ko autopsie ndaw si xaw ma naka Bousso te nekkoon conseil conseil de bëgg démb nañ ko autopsie ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen Samba Sall nañ def autopsie ci kooram Samba Sall bi yoroon dossier Adji bi Samba Sall nañ ko autopsie tay ñi ngi ci Bassirou Gueye ñi ngi ci Bassirou Gueye tay yi wuñu ak Bassirou Gueye ñi ngi xëccu ñu ko bëgg a dafa bëgg dem bu dem ñi ngi réeroo dal bu deful dag nañ ko ray waaw bu deful dag nañ ko ray wala mu collaborer collaboré Bassirou ñom ñoom ñu dañu dugaloo seen tolli bu deful dag dañ ko ray parce que buñu ko ray dañ ko suuli rek jaga jaga dem suuli du am autopsie motax ñom ñoom dañuy rey parce que Sénégal dañu autopsie bo su buñ buñ nee diw dee la bala ñoo am jamm dañ ko gaaw suul duñu xam lu ko ray dañu yaakaar ne yàlla mooy rey te ñi nekk ci nguur gi ñooy rey yàlla reyu leen may wax nag que toute l'opposition doit se lever toute l'opposition c'est un coup d'état juridique et constitutionnel si vous laissez passer ceci c'est pas la peine d'aller aux élections c'est pas la peine ngeen di wax ay troisième mandat quatrième mandat c'est terminé lii nii bu jàllee c'est un test Macky Sall la conséquence la ñoo ko tey def ko test xool ba xam Sénégalais dinañ jóg wala duñ jóg test la lii c'était un coup d'état bu leer naññ naññ naññ naññ ku sañee def lii suba taxaw ne Macky Sall candidat la Macky Sall moo gagné Macky Sall moo nekkaat moo 2029 Macky Sall gagné 2035 Macky Sall moo gagné du dara ci ñoom ndax lii moo gën a garaaw bu ngeen bàyyee lii mu romb jëgatul ngeen fi nekk di wax ak dem fenn Pape Omar Sakho mooy njiitu conseil constitutionnel Abdoulaye Sylla Seydou Nourou Tall Mouhamadou Diawara ñoom ñett ñi ñoo fa nekk moom ñii ñeent te nekk juróom-ñaar rek fa des lan lay coûter Macky sàll mu toog ci biroom jël benn décret ne nommé naa Akhenaton nommé naa Djidji nommé naa dégg maam Seydina Omar membre conseil constitutionnel ñett nit yoo xam ne moo fa manqué du dara ci moom mu def ko décret dong la bu muy signé waaye nag dafa am politique bu nekk ci biir dafa am ñu muy tànn am ñu mu bëgg am lu muy xaar agenda wu 2024 bi lay xaar moo tax mu bloqué conseil constitutionnel bi taxaw di xaar moo ko tey bloqué ko pour am lu muy xaar le bon moment am lu muy togg am ñu muy tànn am na ñu muy waxal moo tax mu bloqué conseil constitutionnel bi pour troisième mandat bi gis nga intérêt boppam kese intérêt politique am jaral ne ko mu bloqué Sénégal gépp droit yoon dara du dox toppatoowul ñi nekk ci réew mi mag ñi baax ñi fi tëdd ak ñi ngeen di wax ak kilifa diine yi toppatoowu leen bëgg-bëggam rek moo am solo parce que bu ñu ko naree téye yeewu ko ba mu ne kodd kilifa diine yi ñooy jóg ne bàyyi leen ko ne réew mi jàmm lañ fi bëgg jàmm du nit ñuy reyante moo fi jëlee jàmm jàmm lii xew ci réew mi du jàmm di jalgati askan wi di jalgati yoonu réew mi di nappaaje ak yelleef doomu aadama yi moo yées rey gi ñu reyante nit kuy dee ci dëgg loolu moo gën a nekk jàmm nit ku ñuy noot ci luy dëgg lii xew nii Macky Sall di ko def moo yées ñeent fukki nit a ñeent yi fi woon dee ci dëgg moo gën dund ci naafeq ak dund guñ lay noggatu dee ga moo gën a nekk dëgg moo gën a nekk jàmm dund goo dund ci njaam dund goo dund ci ñu lay noggatu dund goo xam ne ki war a jiite réew mi jiite askan wi teg ko ci charte yi jiite réew mi teg ko ci dëgg teg ko ci àq ak yelleefu kenn ku ci nekk boo amee dëgg ñu la ko réew mi dox ci dëgg bi ko yàlla bëggee justice nga di ko jalgate bés bu nekk bu nit ñi génnee fippu nga ne lii du jàmm du nit ñi toogee mu continuer moom nekk ci jalgateem nga ne loolu mooy jàmm yéen ban yàlla ngeen jaamu ban yàlla ngeen gëm mooy sama laaj ban yàlla ngeen gëm que les Sénégalais préparent la révolution que chaque Sénégalais essaie de chanter la Marseillaise dem leen ngeen ubbi l'hymne national bi nga xam ne mooy France ñu tuddee ko la Marseillaise ngeen dem ngeen lire ko ñi mën lire. liir ngeen déglu mooy ak ba ko bi tan. lan motu tax ñu tànn la Marseillaise bëgg dem maa ngi leen defal laay sama laay mu mujj sur le 14 juillet en France muy date bi nga xam ne date révolution française bi nga xam ne ba fa ñu mel na Macky Sall mii le roi Louis XVI. di buuma ko buumbi di jalgati yoon ànd ak la bourgeoisie ànd ak le clergé ñuy noos jël alalu askan wi nappaage seen i jeeg askan wi dem ba amatuñu lu Sénégal toll tey dañoo jóg fàq seen i yàpp def seen révolution jàpp buur bi dagg bopp dem prison bas yi libéré prison yi jàpp buur bi dagg bopp bi publiquement daal di créer seen république ñu ne lan ñu ne république laïque amatul ay religion amatul ay yàlla bu ñu kenn wax kenn ku ci nekk na nga gëm lu la neex mais état moom amatul yàlla ñu ku neex na nga nekk catholique ku neex na église bi ñu doon taxawal fële y' plus d' église dans bu njëkk bi buur bi nekkee état de église dañoo dañoo lëkkaloo woon ci turu yàlla di nax askan wi lekk seen alal parce que ba xam ne ay tàppale la parce que dañoo fàq seen yat jël église bi daan sànni ci àll ba jël jël buur bi dagg bopp bi créer république citoyens yi am ay droit ñuy voté ku leen déglu sànni ci àll bi teg keneen créer seen marseillaise bu ngeen demee di jàng marseillaise da ngeen xam ne France ay caaxaan taxalu ko. taxawu ko ay lambar-lambari taxawu ko ay nit ñu tàlli seen loxo di xaar yàlla taxawu ko ay nit ñu génn seen jaasi taxaw ak seen yet di dee ba dugg bàmmeel ñoo ko taxawal ci deret lañ ko taxawalee France dañ leen ngeen lii seen mooy di ngeen xam ne du dëkk bu caaxaan bu ñu toogee fi naan France France France du dëkk boo xam ne dafa sosu ci caaxaan rek lambar-lambari toog di xaar yàlla dañoo futteeku jaay ne jël seen bakkan bi teg ko ci ko taabal ji ak seen bour yeeg ñi leen doon jaay doole ba taxaw ñun ñu taxaw rek tàllal suñu loxo di xaar yàlla tabaskeeg daggi mbubb boo duggee ci réseaux sociaux gis kenn ku nekk ñëw sa mbasin daanu ne ko ba na fang nga taxaw di tiitaru pousse baak mbasin baak wëñ baak yëpp ci dëkk tubaab bi la jógee nga yow yow nga yow nga dem ba ba mu rafet taxaw ci réseaux sociaux yi nag foo foo toj xamuñu suñu ay priorité xamuñu li ñu war a xeex moo xam ne lépp da nga koy jéggaane dàll yaag mbasin baak pousse baak xar yaag lépp koy jéggaane yëguloo xëy yow yaa ngay achalandé wu dañu yedd suñu bopp taxaw xam suñu ay priorité xeex bi ñu war a xeex ñu xeex ko mën a dog moomu njaam gi réew mi mën a soqali ko ñu soog a mën a waaye ñun dañoo war a sëgg kenn lu kiy siggi bay taxaw wala sa bopp gi réseaux sociaux yi sama mbasin bi ni la mel rek sama julli gi sama xar yeeg sama tabaski man talu waaye tabaski gi ay waaye man sama xel ndax réew mi dafa cate jafe-jafe yi bari man bala ma ma tabaski yooyu yëpp damay tabax am réew mu mel ne France wala Amérique wala fan may soog a sama xel doo dal waaye tant que amuñu yooyu condition yi gis nga nit ñaa ngi dee rek feebar bi nit ñaa ngi dee guddeeg bëccëg Sénégal comme ay weñ bés bu tout wuñ leen lii mooy li nga xam ne moom laa newoon te dinaa ko indi te xam naa ne di ci woo opposition di ci woo société civile di ci woo toutes les forces vives de la nation kilifa diine yi kilifa aada yi kilifa tradition yi famille yi daayira yi kuréel yi groupe whatsapp yi opposition bi société civile bi syndicalistes yi mouvement associatif les étudiants les professeurs les juristes ñëpp tout tous les segments de la vie publique du Sénégal yéen ñëpp ñu ngi leen di interpeller ngeen jóg taxaw def li ngeen war a def ci coup d'état bi nga xam ne c'est un coup d'état constitutionnel bu le conseil constitutionnel jóge def tey jii te kii di Pape Omar Sakho bi ko jiite ànd ceeg Abdoulaye Sylla ànd ceeg Seydou Nourou Tall ànd ceeg Mouhamadou Diawara ñoom ñent ñoom ñi ñoom ñoo tëri Sénégal tey rendi ko comme bëkk démb wala démb ni ngeen tëree seen xale ni ngeen tëree seen xale rendi ko xatteet deret ji gicle ni ngeen tëree seen xale rendi ko noonu la ñeent ñuy taxawé tër Sénégal rendi Sénégal ngir magal Macky Sall rendi ngeen seen i ngir magal borom bi ñoom ñu rendi Sénégal ngir magal Macky ndax ay satanique lañu doxuñu ci li yàlla bëgg doxuñu ci li yonent bëgg c'est des gens yo xam ils sont avec Lucifer ils sont avec le dieu satanique ci loolu lañu dox réew moo xam nga ne 94 musulmans lañu kenn ku nekk di bakku tay dundé yaakaar dee taab di àjjana. te yow mënoo fexe ba li yàlla bëgg dara nga taxaw ci réew mi dara la nga gëm mënoo fexe ba dëggal ko jëmmal ko layam layam rek naxante rek fuñ jëm mais je garde espoir am naa yaakaar am naa yaqin na yi pare nañu fi mu toll nii sikk sàkk dama koy wax ngir xër ak farlu waaye aw ma sikk sàkk ci si benn Sénégalais nag

lii taal réew mi yépp def na ko kon lii laa amoon tey ne naa ko indi waxtaane ko yéen ngeen xam ko maa ngi la décision de 23 pages su ma ko mën a partagé naa ko partagé yéen ñëpp ngeen am ko mais li ci am solo mooy les conclusions yi ci def au départ justificatif yi ñuy justifié na ñoom article page 4 te dañu nekk dans une situation exceptionnelle dañu am ay jafe-jafe ñoom conseil constitutionnel bi moo tax ñu ne il faut que ñu continuer jël ay ndogal donte matuñu juróom-ñaar waaye ñeent lañu waaye dañuy xuus ndax conseil conseil constitutionnel bi mënut a taxaw liggéeyam dafa rek continuer waaw liggéey bu dox day dox mais ci yoon mais liggéey bi mënut a jël ay dogal ci jalgati yoon